man bi Mali defee fédération Mali yàlla indi ma ci koñ bi lu jiitu loolu at ba mbari fii nekkoon yëpp ñu ñibbi am na ñu nga xam ne xamant nañu bi ñu demee ba ci yoon bi ñu décidé ne dañuy defar seen xaalis c'est que chaque poste la am mu ubbi ñu ne ma ubbil crédit lyonnais tubaab yi ñuy yóbbu crédit lyonnais lay nekk ma ubbi crédit lyonnais depuis boobu maa ngi liggéey ak banque yi d'accord looy liggéey toujours nga am problème euh, ci ubbi lettre de crédit yi léeg nga am ci problème am naa problème Mbour musuma xam ba léegi fu Mbour nekk waaye fay nañu ma am naa problème beneen musuma xam fu beneen nekk xaw ma ci kaw nekk wala ci suuf ah fay nañu ma parce que ci dégg laa nekk bii nag li ma jaaxal jour bi njëkkee woo tubaab yi naar ñu leen kaay leen wuyu pénal rax ni def porte plainte ñu ne def feebar juge bi doon at mu ne il faut mu indi certificat de médical wane def feebar ñu defaral ko fa euh, kayit wane def feebar mu daw dem Maroc loolu moo lijal affaire bi mu ame mbokk ñu ne nit ku ñuul amul mbokk ku ji intérêt rek dem waaye man bu ñu seetee ñu ne 2008 man 2008 la bateau bi am de 2012 ñu bindal ma ne fay na borom nañu ko joxuñu ma su ma notaire lañu ko jox soo fekkoon man lañu ko jox sax. boobaa dina jafe ñu jox ko suma notaire ñu bind ci tuuram notaire bi kayit baa ngi nii ñu ne Bocar fay na boram dindi leen gaz bi ñu dem ci kiyam ñu bind ko notaire bi notaire bi ñëw moo ci def giri giri bi xam nga lu mu doon mu bind ko mu jox ma kayit bi mu ne banque bi neen nañu la dindil kii bi man biyaaw bi muy nekk CB BAO balaa mu nekk CBAO euh, wax nañu ma waxal ñaata action nga ci bëgg ma bañ courage si lañu riñoo woon su ma moo mënul tubaab yi miin naa li may liggéey bi ñu joxee moteur bi kayit bii bind ci tuuram ak adresse ak lu muy liggéey mu jël kayit bi jox ma mu ne nee nañ naa dindi sa bor fay nga le 2 4 2009 te le 2008 la ñuy wax bateau bi kon xam nga bokkul kii le 2009 la ñu ma ko bind la ñu bind notaire bi binduñu ma sax man def ci seen adresse signé ko jox ko notaire bi waneen fay naa suma bor te ki yëpp compte bi ma amoon ci banque bi ma defoon man ak Abdoul Mbaye banque bi yaawoo moom bee maa ngi këyit ñu ne amaluma woon bi yaawoo bi nga xam nag ma ak Abdoul Mbaye ñoo ko defaroon man jox joxoon kayit it xaalis étude bii defar banque ba ci la ma affaire daal bii moom bi nga xam ne bind nañ ñu ne mélébé ma defe ni jeex na waaye man toppatuuma ko parce que man nekkoon nañ sama bokk daal bu jëkk xam nga nag tukulóor def wax ne musiba du am war amul bi nga xam ne commencé naa coow ak ñoom

mel ne su ma leen amaloon bor du ma nangu ma jël ci onze milliards bi ma nee man ñoo ma amal xaalis man man may toppatoo suma xaalis jékki-jékki ñu am dimbal ki leen di dimbali ñu door a wax ne nag amal naa leen waaye ñoom bu jëkk waxuñu amal naa leen li ñuy wax yëpp musuñu wax amal naa leen benn deuxièmement ku amal bor sept milliards du nangu nga jël onze milliards kon xam ne borom day yokku di te compte bi ma am CBAO bi binde nañu kayit kayit baa ngi man mu ngi fii ñu ne amaluma leen bi konti Abdoul mbay traite yi ñette traite la ñette traite nag ku def même lu ma jàngul jàngul ñàkk xam-xam ñàkk xel ñàkk lu mu doon benn traite ñette traite ci benn bateau munul nekk ñette traite man def naa lu mu bon bon buñ bi ñu libéré bu mu àggaju boobu jour def naa 103 bateaux yëpp bato Dakar lañ bii moom moo ànd ak bateau bi mu ngi ñëw le trois ñu ne annulé nañu ko moo tax fayuñu ma amul signature ñu indi beneen ñu ne bii le vingt et le vingt et ak le deux fekk bateau bi wat deserte na bee dem ñu ne leen bii amul signature ñu indi beneen bi am signature mu ngi nii lii yëpp espéru attekat nit ku ñuul la waaye moom kay kon xanaa kenn xamul lu mu doon soo fekkee indi nañu bii ñu ne bii nee ngeen annulé nañu ko bii ñu ne a ah indi ngeen ko ci 21 bi waaye fekk na bateau bi dem bee yoonam ñun di bi ñu signé encore le 21 man loolu moom a jaaxal nit nag bis bu ne nga gis mbir mbir euh, mbir boo xam ne bu biri ñu daan ko mbir danga nga biri ñu daan ko te bu nit jiwee toolam saxul dana jiyaat man daal eh, waxuma duma ñàkk de déedéet parce que ku amul doo ñàkk ku ñàkk rek da nga am bato bi Guinée la wàcc eh, gaare woon ki ma ko jaay service ascot la jaay nañu ma quatre-vingt et bato ci ceeb bokkul yu mboq bokkul yu yeneen bi mu garee Guinée eman maa am waaye ñëw fii suma nit ki nga xam ne moo ma jaay ascot banque bi musuma sax légui nak dañ may defal rek espèce ligne en cas bu dara amé waye duñu ñu client bi moma yonné marchandise man luma am dugal ci parce que xaalis rek neexna waye amna lu dakk xaalis nite mo dakk xaalis fouf nga nite ku làmb xamné nite nga mo gën xaalis ñu tok fi mu ne ma amna bateau bu nekkoon guiné amoon na vingt quelques mille tonnes de na dix et quelques So ñu indi la ko envie la d'accord. ko d'accord mu indi envie waruñ ma jox kayit bi parce que man xana luma xamul xamul ko indi 103 bateau warna min lolu du indi 103 bateau warna min bi envie kayit envie yaa mu ngi fi mu ne ah léegi suma banque bi joxe même bo fekke fayuma banque bi dañu war waxal du man té bato yépp at bobu 2008 bobu indina 15 bato bobu dama dem bé tudd fi ci souf ci goudi 11h Moustapha Ndiaye ki ma ki ñu jox traite bi mu ñëw fi yéma mu ne góor na premier ministre ñu ñu wola mané ko ah heure bi heure bii de doy na waar ci ñun tuglóor sakate ñi nga xam ne eh, xam nañu duy ceddo li Jolof di wax ceddo suma maam falu woon na vingt-huit ans far bu faawura la tudd falu na jal vingt-huit guddi naa dañ ay wuyu ji mu ne waaw waay xam nañu sa xarit la ma génne moom bee ci buntu bi ca gardien bi man am na lu ma fàcc ma wax su may doom en cas ngi dem su ngeen ma gisul bu leen tiit ànd leen ak seen xel maa ngi dem ma taxaw ma laaj ko est-ce bind na mu commencé naka nakal ma ne ko bindal mu bind ma ànd ak moom primature premier ministre boobu daa ku ñu wax Hadji Soumaré la soo fekkoon xaalis moo ma intéressé tey duma sañ wax ñu ne waxal loo bugg ma ne ko ah man de wax dëgg yàlla bëgguma dara déewul mu ngi dund de mu ne ah bëggoo dara ma ne ko bëgguma dara ma ne dara jafewu la ma ne ko déedéet dara jafewu ma ki may jox du jeexal mooy yàlla te gum naa ko ah, mu jóg am fu mu dugg mu ñëwaat mu ne ma nga ne bëggoo dara ma ne ko déedéet mu ne léegi ñun lu ñu bëgg loo ci mun ma ne ko lan ngeen bëgg mu ne ceeb bi bateau bu ñëw danañ ñàkk un milliard cinq cent deux milliards te benn ceeb du fay douane ma ne ko ah mun naa fexe ba mu deñ de waaye nag maa ngi sant yàlla ma dalaloon suma xel ma dal suma xel su ma yaa wooka mu ne lu tax nga ne bëggoo dara munoo ñu woon wax ma ne ko déedéet déedéet euh, gis nga te léegi yéen ñu ngi teew nii di laaj seize Senghor ak Lamine Khoury Gueye bi ñu ñëwee suñu kër ngoon ñu jàng alquran musuma dégg tuur seize ñun lal la ñu am moo lal yaa ngi ci kaw yéen nag seize ngeen xam léegi nag léegi man ma ne ko boolem ak ministère de l'intérieur nga astaghfirullah ministère de commerce ak directeur de commerce ñoo nit ñu ngi dund ñeme naa wax Dikura ak Mamadou Niang ñu wooma ñu ne Bocar Kayuyu ma vou ir bureau Dikura mooy ministro de comércio, Amadou Ndiangue gi toog mooy directeur de commerce intérieur mu ne ma waaw lu la gouvernement bi sant loo ci xam ma ne ko tey binde leen ne situation jeex na kenn dootul def situation ah loolu war na ma ne ko yéen gàddugu leen ko ku ñu bu waxee ak man bu ma waxee Amadou ñang comme que muy directeur contrôle économique mu réglé ko mu ñu bàyyi ñu bàyyi ni di jaay rek su sobe yalla kilo bi ak du ag fi ñu wax bobu dañu calculer kilo 600 francs kilo ceeb 600 francs ñu ñu augmenter sucre augmenté diwlin parce que man bu may commencé bi kilo ceeb juróom benn dërëm litre diwlin 92 kilo sucre fuk ak 65 euh, euh, ma ne leen nag kay na ngeen ci génn quelques jours rek dana réglé yàlla réglé ko d'accord man wax naa ci waaye yàlla réglé ko wax dëgg yàlla nag ku dee yow rek yaay yow rek la ñuy bàyyi sa pax Amadou Niang def na ci liggéey bu mag a mag a mag a mag fu ñu rek ci Sénégal bu dañuy wax wool bookar bu ma ko wooyee rek mu ne bàyyi leen ko yàlla regle ko waaye man banque bi ñoom kay ñu ngi doon tal lii mu amal l'imam Aline mu ngi ci carnet bi 3 milliards 3 milliards 800 et quelques millions li amalon banque Abdoul Mbaye 4 milliards et quelques fay naa ko habilité bi baa ngi fii léegi kay bi ñu amee fit di ma wax amal naa leen war nañu wax ne bon léegi na ngeen ñëw toog protocole bi mu wax li ci nekk mujj nañu ko xam ñu annulé ko waaye li tax annulé wuñu kii bi ñu ngi xaar bi lu ñu war a àtte àtte ko lu ñu àttee nag boobaa ñu seet waaye am naa yaakaar lu ñu war a àtte bu ñu ko àttee comme ni ñu annulé le protocole bi ñu ne baaxul li ci des yi jomb naa naa ne nii man daal lu wér banque bi xam ne ne amaluñ ko bu ko jëlee yi xam ne ne amaluñ ko ñun nag mënul wax man mii daal mais commencé bi yàlla laa séenu bëgg naa xaalis waaye dama am lu ma jiital di bëgg xaalis